fii la BRT bi war a jaar BRT nag euh, di projet euh, nguur bi nga xam ne euh, jàpp nañu ñoom moom mooy faciliter dem ak dikk bi fii nag ci station Edon ñu war leen fi jëlee mbokk yi liggéeykat yi ak ak clients yi di ko naxarlu lool du ma def lu dul ànd ak suma caméraman tàllal leen sama micro ngeen dégg seen gis-gis. salaamaaleykum papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax. waa seen Senclic euh, ñoo fi jaar di la laaj naka ngeen gisee berte bi nga xam ne moo fi war a jaar. bañu ñu nuyoo Sénégal yëpp di leen ziar li ngeen ñu laaj nag ah mën nañ cee wax parce que BRT bi ngeen wax nii lu baax la waaye it am na loraange goo xam ne dina ko indi ci ne ñu nekkoon ci yoon wi yëpp fi muy jaar. dana am ñoo xam ne dinañ perte seen i emploi liñ doon foraatu di ci dundal seen famille di ci dund ñooñu danañ am problème parce que berte bi dana yàq seen sutura gi ñu daan dunde euh, lu yàqu nag defaru waaw kon nag ñu ngi naan sans borom bi nga xam ne mooy borom doole yi lépp ah ñi nga xam ne yàqu la nañ ci mu taxawu leen joxaat leen feneen pour ñu mën a daan seen doole di dund di suturlu euh, euh, àddina si metti na lool metti goo xam ne kenn xamul fu mu yem te day tàmbali parce que li ñu gis ah doy na waar lool lool lool kon nag bu boobaa dañuy wàkkirlu ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak ñun sunu yaakaar Cheikhul Khadim mu wallu ñu wallu Sénégal yëpp dolli ñu suturaak teraanga wér ak wérle feebar bi fi ne di waaj a dugaat sans borom génneel nu ko ci réew mi ku mu dalit mu faj la nga jóg doxi say soxla waaw loolu daal la ñu amoon ci lu nuy wax ci liy xew ci ndakaaru bàyyi tatal looloo ma gën a jaaxal moo tax ma jaar fi nag doon nemmeeku sama gaañi yi parce que fii sama station la. te BRT bi war na fa jaar. waaw BRT bi war naa jaar ci totaal bi kom ni nu bombee yoon bi yëpp cosaan ba. Euh, fii ñu toll ni kon bu nu bombee lii war nañ bomb totaal bi xanaa total moom li mu bokkul ci réew mi la dañuy ñaan nag sans borom mi am doole muy euh, natt fi mu baaxee rek mu ko fay def waaw waaw mais loolu kay bu ma ci eggulee sax ñépp xam nañ ko total moom mooy total rek waaw mais kii fi nekk di ay doon di doomu Sénégal di doomu réew mi di daan dooleem boole ci ay doomu sénégalais yuy daan seen réew ñu ñëw lelli seen côté bàyyi total mooy loolu tubaab yi ba léegi kon ñu ngi fi dinu sonal di gën a taxaw di bëgg gën a bari doole soo moytul nii ñu leen jéggéen nii kenn du leen laal laal nag Sénégal laal doomu Sénégal bàyyi leen ñoom kon nanu sama borom di dimbali ci réew mi ñu xam fi nu jëm ak fi ñuy teg suñu tànk man mag laal lu bari fekk naa ko fii muy sikaab gii sax liberté de la dëkkoon daan ñëw El suur fii di seetaan cinéma waaw kon bu lii amee dana ma metti trop mais xaw ma fu ma koy jooyee xanaa ci yàlla ak yonent beeg xa Khadim mi ñu yaakaar tey ak ëllëg waaye DRT bi kay dina arrangé euh, ñenn ñi waaye du arrangé ñi ci des xale yi di dem ci ndox bi DRT bi bu ñu leen ko joxoon kay liñ fay def ñu am fu ñu taxaw jàppandu ci kon dootuñu dugg ci ndox mi du dëgg bàyyi derte bi ba jamono neex ñu soog koo taxawal. jërëjëf papa ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax mu cog dolli ko rek. asalaamaaleykum ku baax ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam. suñu fañ fay nañ la. noo gisee BRT bi war fee jaar. Euh, en fait pour commencer maa ngi nuyu yëpp ba pare di rafetlu loolu projet bu rafet la mais. li ma si xaw a jaaxal as mooy que ne munoo teg projet boo xamante ne dafa war a jaar si bërëb ya nga xamante ne yàq lay njëkkee par exemple tey lu mel ni station Aïdène bi mënuma comprendre sommation bu fekkee ñëpp lañ ko jox Sénégal que ce soit Total et truc ñëpp la ñu war a teg si même pied d'égalité bi man dama mos a rafetlu liggéey Macky Sall mais jamono ji awma argument pour défendre ko si leen parce que euh, lii boo xoolee li nga gis fii du lu rafet tax rafetlu wu ma ko tey président bi tàmm yàgg si politique am ne 500 000 emplois pour les jeunes tey ñii ñi ngi dugg si mbënd bi ñii di jaafe tey Aïdène bi ay père de famille ñoo fi nekk ak ay mère de famille tey bu ñu leen yëkkatee fii amuñu feneen fu ñu lay dugal dama jàpp ne njiit booy def dara da nga siy waxtaan ak askan ba noppi waaw ñu yëkkati Aydan bi tey ñëw song ko yàq gis boo xoolee jardin bi te laaluñu station Total parce que c'est quoi c'est la France nañuy wax dëgg parce que tey njiit bu nekk dafa am lu muy dig population ba ñu ànd gunge ko kon tey il ñu respecter sénégalais yi respecter nañu encore une bonne fois li may gën a di wax dañ doon wax désencombrement décentralisation tey yow BRT bi ngay tabax baax ko c'est bien beau de construire ay tali yi baax pour yoon bi faciliter le transport mais loo xamante ne ndakaaru la jëm parcelle yo fu mu toll yaa ngi yaa nit ñi ba léegi au niveau de la ville man nag si point boobu laay laajte le président critique bu positif la du dara ka bañu ñu loolu mais booy def dara il faut tout le temps nga tàggu askan wi. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu baax maa fay. Euh, ñu ngi fii ci station Aydon euh, BRT bi war fi jaar euh, naka nga gisee situation ni bon avant tout maa ngi nuyu ñëpp euh, di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ay def émission bi bon di leen expliquer comme affaire BRT bi bi ñu bëgg a def euh, fii c'est bien beau quoi man gis naa ne baax na ko mais boo xoolee boo xool dëkk bi dafa bëri ay travaux ah beaucoup de travaux quoi xam nga foo mënti jaar travaux ngay fekk te travaux yoo xam ne dañ koy day am mais doo xam kañ la finition moo tax dëkk dafa xat instant yi foo mënti jaar da ngay wiiri xam nga c'est bien beau quoi ñu def ay ama ay BRT ci dëgg xam nga parce que loolu tamit day tax moo ne communication bi day gën a gaaw d'accord mais tamit bu koy def par benn benn moo gën quoi mais songandoo ay travaux xam nga dëkk bi xat nañ ñi duñu duñu dem duñu ñëw xam nga liggéey heure bi ngay xëy das bu nga fi nga war xëy dafay dangay ngay tardé soo wàccee boo ñi pour egg sa kër day métte ndax dëkk bi travaux la xam nga su ma gisoon ne xam nga ñu koy songoon di ko def par benn benn loolu tamit dina tax quoi dina dina gën a falal dem ak dikk bi quoi waaw mais mais c'est bien beau ñu def BRT si dëkk baax na parce que loolu boo xoolee ba xool day tax a waaw. Euh, non xam xam nga euh, station moom dëgg la dëgg dëgg bëri na si dëkk bi station boo dem secteur boo dem da nga fekk station quoi mais nag xam nga bu ñu amoon benn zone boo xam ne dañ leen di dañ leen di aligné quoi ñoom fu ñu nekk ñu mën a dëkk bi gën a mën a am tuuti espace comme ville bi nii dina gën quoi su ko defee ñoo xam ne zone bi zone de station la boo am boo amee pour jënd carburant da ngay jàdd foofu dem jënd carburant dem dina baax quoi parce que boo xool tamit espace yi nekk si kii yëpp presque boo xool ko jël si ñoo ko jël quoi xam nga ko loolu demee quoi. waaw surtout surtout surtout wàllu emploi des jeunes xam nga parce que boo xoolee xool liggéey boo gis gars yi song rek dina am ay emploi quoi yu ñu si jël xam nga c'est bien beau xam nga mais tam bu ko mënee gën a accroître gën accroître gën ko yokk. dina gën quoi dina gën parce que instant yii nii boo xoolee waxu jeunes yi amuñu liggéey xam nga jeunes yu bëri amuñu job dañuy taxalee xam nga ñii ñu ngi liggéey ñi ngi liggéey dañuy faratu xam te gis naa ne bu liggéey bi bëri si dëkk bi rek xam nga jeunes yi comme clandestin yi affaire clandestin yi am ni dina wàññeeku xam nga dina wàññeeku non gënalul kenn parce que loo xam ne yow chaque fois da soxla carburant a koy soxla képp kuy liggéey si kon man miir aussitôt da ngay soxla carburant xam nga non ñu def la benn zone boo xam ne ñoom dañuy aligné quoi zone alignée boo xam ne ñoom ñëpp fa la nekk su ko fee ku soxla carburant rek da xam ne fii nga jëm nga jënd carburant comme ça ko defee a yaatu a jaarale a jaar naes te kenn du sonn xam nga loolu la daal loolu ku si nekk rek am sa secteur boo xam ne di nga liggéey di nga nekk fi nga nekk di liggéey te doo te kenn wala doo baare kenn loolu tamit rafet na quoi xam nga parce que boo xoolee boo xool dëkk moom loolu moo koy doxal quoi moo ne communication moom